Fatu the activist, blasted Alvihaj supermarket for selling bad or expired foodstuffs to the public. On Saturday, the social media influencer took to her Facebook page to address Alvihaj supermarket and to let the people know about the rotten bread she bought in the said supermarket, urging the public to be very careful on the foodstuffs they buy and also the Food Safety and Quality Authority to be very vigilant to visit this place to check on the things being sold there. According to Fatou Jan, some of the staffs at LVH complained to her that they are not paid. She also pleaded to the general public to avoid buying foodstuffs from LVH supermarket because those people don't care about the health and well-being of Gambians. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ma ne update about food safety eh, fii nii naka alvihage with the filthy nasty rotten food buñ ma jox noonu bread buñ ma jaay noonu mbuuru bi tey dem naa fa delluwaat naa fa dem naa pour jël suma one thousand nine hundred and something dalasis bi ma fa spend waaw mbuuru rek laa fa jënda mu yàqu ma gis mbuuru bu yàqu bi ah yeneen i ceguwuma woon sax ndax dafa ex am na yu expire na expire wu dem naa nangu suma xaalis yépp te ne leen du ma du ma delloo siwuma seen bagage te delloo leen suma xaalis su ma ko saani saani ko suma boppa waaw def naa li ma war report naa leen food safety xëy gis ngeen soo gisee police mënut a def yëpp moo tax ñu jël some government institutions yu mel ni ay ñoom food safety yeeg yu kenn xamut ñu jox leen dis liggéey pour ñu complement the work of the police wala ñu jekkale liggéey bi ñu yombalal liggéey bi police waaye léppalu lu food safety mun a def police mun na koo def moo pour ngeen xam loolu su food safety bugut a def actions rek go report dem to the police waaw police yi dañ ñu fi nekkal. food safety nekkal ñu fi su food safety xamut lu leen war ngeen dem su police ñu def lu leen war su ñoom defut lu leen war nag citizen si génn def lu leen war food safety dem nañ foofu woon leen rek after seeing all this evidence waxuma si dara boobu maa ngi koo bàyyee ni la di leen déglu nañ leen déglu rek dem naa police pour suma xaalis bi moom dama dem reporter ji police because bëggumaa indi commotion bëggumaa indi problème bëggumaa indi violent police xam nga ma ne ma dem naa fu war si police ma dem ne leen suma xaalis laa soxla te boo tax buggumaa dem create violence dama bugg a ñu dem ma dem jël suma xaalis te noonu laa ko defee dama dem ne leen jox leen ma suma xaalis li ma fi spend démb yépp delloo leen ma ko waaw maa ko moom maa ko moom yéenay jaay lu bon and I have all right to go and take my collect my money back waaw I have all right the actions that you people did yesterday yéen xamal ngeen ko seen boppa ak seen ak seen fake staff yi nga xam ne ñoo dee reach out to man di report yéen pour ma pour ma dimbale leen ne yéen doo leen leen dee fay indian yii nii dañ tilim avoid leen dis alvihaj tos ak indian yi seen lekka yi ñii faalewuñ gambien si taluñ leen ñi leen di liggéeyal sa respectuñ leen ooluwuñ leen pour fay leen lu ñoo liggéey sa problème la ñeme ñu ñoo wax where are those government institutions working with these people ñu leen di bribe lii dafa war a jeex ku dee ak sa baamel la gis ngeen nu maa ñaxee feebar laa def wéruma waaye duma toog di xool di seetaan suma nit ñi ñuy dee si kaw lii xam nga ñaata nit ñoo dee si lii mbuur boobu ku ko jinoon guddi lekk ko soo doo eewu suba doo eewu suba delloo nañ ma suma xaalis ma génne meya xaalis bi si biti thousand nine something wallahi ma meya xaalis bi wallahi Seaforth stated that every good citizen should be a police of your own and concluded by saying she will support the police in anything good for the country and urging other citizens to follow suit. bi ma delloo tey alvihaj wax yu dëggu yu serious laa leen wax ma ne leen ne soluma uniforme takkuma soluma ba police te soluma uniform police te awma badge, moo tax respectu leen ma ma every good citizen should be your own police I am a police waaw te maa leen di wax yéen every good citizen should be your own police support our police support your police waxuma leen ngeen support leen si lu bon wala lu korop wala lu ñaaw wala lu yaax supportuma si benn police xam nañ ma man bu baax a baax waaye I will support dem in everything and anything that will help the country I will support them and help them in anything and everything that will move this country forward I will support and help them in anything that will bring peace in this country but duma and support si dara lu bon oo njuuj I will dégg nañ lu ma leen wax ma ne leen I am a I am a police of my own Wow, I am a police ñu i am saying caméra yi foofu ma ne dem police bi si kaw ba si suuf xam nañ loolu laa leen wax ma ne ngeen gis nii rek xamu nit nii rek ko I am an activist and I stand for the right of the people I stand for your own right that naar boobu indian boobu noonu ma ne ko ne I don't violate violate human eh, violate human right déedéet ma ne ko I respect you and I have and I respect your rights ma ne ko bot li ngeen di def is not good and is not okay ma ne ko lu bon ngeen nekk di jaay te ngeen xam ko ma ne ko tey lu ma leen wax rek war ngeen koo dégga ma ne ko ku amul voice naka la moo def tey ku amul voice mu ñëw fii nii. dara du ci gina dañ ma don beje jox suma xaliss way jox nañ mako de ma fa delu tay bi man ma fa delu tay bi ñu deeloo ma suma xaliss and the, the hypocrite stars ñi nga xamne ñoo dee reach out to man pour ma dimbale len ak Watson Gambia pour ñu wax sen wax ñu suñu gisé sen boss yi ñu taxaw di len di fen to the extent of kicking the driver su len driver bi suuy rek dina ko dimbale mu suu leen ñetti boys Gambian boys yooyu noonu man mom man mom lu man lu ma wax dégg nañ ko xam nañ man ñu ko sax man leen ni man dama leen ko seen kanam leen ko na ma kenn rek tek loxom bi wax na leen ko ma dama leen ko wax man man dina man lu nekk dama see dem ba jeex delloo nañ ma suma xaliss alhamdulilahi rabbil alamin Gambia these are people yo xamne these are eh, eh, ñi nga xamne ñu ngey ñëw ci dekk bi pour yaaxa dëkk bi ah leen leen let expose dem amuñ si ben bakar gis ngeen bir dafa wallahi pour mu génn dafaa jafe yomb na pour dugga waaye bu duggee mun naa laa jural lu metti lu bari lu bon lii tuyoo def buñ buñ caaxaane suñ wér gu yaram ñu bëree ngee dee. Lamin Jaiteh, principal scientific officer at the Food Safety Quality Authority, has warned that any importer or food business operator caught selling expired food will face justice. He advised that if they have expired food in large quantities, they should notify the authority to provide them with safety mechanisms. It could be recalled that in 2020, FSQA released a statement that anyone caught selling expired food would be prosecuted. Reporting for LSTV1, I am Bajan Kamara.